dugg day dugg dam dam dam dam dam xalifa baa ngi dugg xalifa baa ngi dugg xalifa baa ngi dugg xalifa baa ngi dugg xalifa baa ngi dugg xalifa baa ngi dugg xalifa baa ngi dugg xalifa bi xalifa baa ngi dugg non non non dama koy fi moo mbokk yi xalifa baa ngi noonu si oto bi xalifa baa ngi nii Serigne Cheikh Ahmad al xalifa yaakaar naa ne bàyyi na ko police delto gannaaw taalibe yi tasaare kaamil bi si buntu police daara yëpp dagg daara Kawlax yëpp dagg imaam ñëw ulamaaw yi ñëw dagg mbokk yi na ko woon rek dama ne ah xalifa yi war nañu xoolal seen bopp ñoom ñëpp àndandoo nekk benn diine ji Touba li muy Touba Ñaseen مدينة جانا بالله نيوم نيب سرين سينا نو سرين سينا نو نك بن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لولا القران وهون تي دين يونت محمد وهون بوي نيو ديتو مرانك باي بي ديم مرانك ادينو بدا غريبا واي فسيكون غريبا او كما خال كون ياكارنا ني لا خليفه بي مي ني دي نيبي اوتو باغي ني دي نيبي كي جيتو دي سيكر لا اله الا الله محمد رسول الله خليفه مسيو خليفه بنينا جولي رك خليفه بنينا جولي رك خليفه بنينا كينو تا جوماجي مبوكي يا باي مو غفيا نيو نكو نتي جوماي نتا نيوم نيوم لا بغا واخ نيوم سو فيكي نيوم جانكار توبا بي دانيو گم سين كليفه ني ني گم سين كليفه دانيو سين كليفه كين لا مو سبحان وتعالى لي مي سانت لي ني ديف ناخ نيكي امول لولو جامو يالا بو دي عمر لي نلا نجا لاج fuy sa luy sa kuy sa mm-hmm. yooyu dafa mat a xel yow mënoo ñëw ci nit ne ko maanaam jullil organisé mu julli organisé nga ne ko tëjal ci jumaa neen seeraat seen bopp damaa yaakaar nag mbir su fekkee ne yàlla dafa namm mm-hmm. ci ñoom ak jeexital dafay am ay signes yu ah, am ndax am na président bi fi ah, nekkoon Ablaye Wade nekkatu fi nekkatu fi dafay dafi jugee Abdou Diouf man mii di wax ak yow ah. mara ngi ni dama bàyyi ma fen mën nga koo ko fi ñoo ko campagne wax ma indi sax Abdourahmane doomi Alhaji Ibrahim du nga àllu Ndoukoumane bi lu ma ci mii di dawal ñun ñoo campagne ba Abdoulaye Wade ak ku ñu wax Bada euh, ñoo ñoo ay fetal mhm. ñu jël suñu oto papa di ko campagnal ba heure falu ba léegi muy Mariama Sarr bi ji waaw jumaa ji ñun jumaa ji ne ibbeeku waaw jumaa waaw ñun kenn joxoon suñu ci nii waa sëriñ bi nee te jumaa sëriñ bi nee na ana biir ñëw julli sëriñ bi nee waxtu yëpp dañ koy julli. Baye Cheikh xoolal am tey xoolal am tey Baye Cheikh lii. ñëpp a dagg xoolal lii ñëpp a dagg lii rek la. waaw ñëpp a dagg diina leen gëm moo waaw diina a ngi sa gannaaw. xam lii yàlla la ko jox. wallaahi yàlla ah yàlla la allahu ah, ngi nuyu mbokk yi saan yëpp te di leen ziyaarawaat si di leen ndokkeel di leen masaw ndax seetaan bi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 manam Kaolack ñepp tag borom Jakarta sa diou jël sen Jakarta xoolal ma li rek nim mu yaram mam ñi diine rek mën a jox ñi ndax khalifa bi jox khalifa bi joxu ci kenn ben dërëm waaye diine mën ñor ndax juma néegab yàlla allah te yonte yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam waxoon na ne ñaar yi nañ ko baye xel bi ma gën bëgg ci kawsuf suuf ak ak bi ma gën a bañ si kaw suuf mu ne mu ne jakka ak juma la gëna bëgg ci kawsuf waye placer marché placer lamb yi xaar yi mom la gëna bañ ci kawsuf pourquoi ñuy ubbi marché yalla dañ ubbi li yàlla tëj li yàlla nga gën a gën ba bëgg ah feebar bi Seydina Omar bi kenn wi dugal waaye sëriñ si bala ngaa bala ngaa ragal feebar da ngay ragal yàlla bare dafal ndànk ba ñu ah? Ah, gis sam-sam lan leen waxoon hmm. biñ namee taw di xaar dee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 dugul lu lay laaj mooy kan mooy sa borom fan mooy sa xibra kan mooy sa yonantu lan mooy sa diine waaw gaay daal bi gaay daal biñ biñ tasaare kaamili daal biñ tasaare kaamili daal kaamil yi daal bi taal bi taari kaamil yi day continuer de day continuer maa la ko am réew boo ci nekk bopp hmm. bàyyiwuñ la li moom ñu la ko hmm. li nga war a def mayuñ la ci jàmm tey damay wax feebar bi ba mu xewee Omar xoolal situation bi ñu réglé Sénégal 4-4 bi bi mu fii di lëmbee réew ndax jëloo ne matuwaay yooyu ndeysaan alaaji dafa am bi lëmbee réew mi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 waaw mu man ma dugg yegg si vélo bee ndax borom téere yi daal il faut ma am lu ma ko laaj kii tey kaamil bi daal foog ma am lu ma ko laaj waaw waaw fere na ma may ma raam nag voilà ah, mbokk yi bu leen toxalu maa ngi ñëw leen xam fay doon mbokk yi borom téere daal foog ma laaj leen lu tax ñu téye téere yi dañuy fen képp ku ne wax bi am na fi da ngay fen bi amul ah, waaw ngeen gis ko noonu waaw sëriñ bi waaw waaw sëriñ bi yow sa téere yi bëri na lan la ni téere nit nekk ngàndaayam ah? am nga policier yi am nga policier ay rakoroma seen mooy seen ngàndaay ñun alxuraan mooy suñu ngàndaay alxuraan mooy suñu hmm. la rek gis nga lislaam weeru koor la taxawoon hmm. moo tax weeru koor moo doon xare ba nga xare badar moo taxoon tey ji faw am dëgg la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 waaw téere moom pour lan la waaw sama waa ji téere moom pour la téere pour lan la. ah alquran. alquran allah. khalifa baangi non ci si domam doomam la yëg noonu tey nga gisee jakarta yi ñëpp genn ñëpp ah gars dañu son nak dañu son dañu son de dañu son amul lu lek amul lu nan am ah ah dañu son ci Macky Sall waaw dañu son rew mi son nañ trop son lu dañu son nañ dañu bëgg a lu léegi amul lu lek rew mi billaay ñi ñëpp ñëpp yaakaar lu ñu ne maam ay taxi ndeysaan li lañ am ku nek la nga am rek moom ngay liggéey tax lañ am tax lañ am ku nek bul ko xébal lam yor japp ko nak japp ko di tejj diko di xatal loolu jaru ko àddina jaru ko rafetal di nuyu Mamadou Makhtar sar correspondant ci Touba Mbacké Mamadou Makhtar sar mang lay nuyu Mamadou Makhtar sar mang lay nuyu bu baakha baax euh, sa élément ñëw na sa élément bi nga xam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 Yaxya Gise yaaya maa ngi lay ziar bu baax a baax yaaya yaaya mi ngi noonu yaaya Gise bu Walfadjri mbokk yaaya Gise ngoog élément Alassane Ba waaye élément Sidi Lamine Niass yàlla yàlla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 Liza amat na ndam Liza amat na ndam ah Liza amat na ndam nag ah Liza amat na ndam ah Liza amat na ndam nag penc maa ngóob ndeysaan ndeysaan xoolal mbooloo mi xoolal mbooloo mi xoolal mbooloo mi xoolal mbooloo mi xoolal mbooloo mi السنغال أقصى قد أنال البلاد جميعا من فيودات ذي الأعلام ah nga ne nañ yóbbu ñi seen ñëpp jigéen mag ndaw bu desee dañuy julli julli dee yonent bi mu taxawal julli lim daj si julli ñun duñ ko si daj dañ ñun dañoo taxaw ne ñoo fi remplacé diine l'islam ya remplacé fi yo remplacé fi yonent bi kon dañuy julli suñuy julli dee dañuy julli kaso bàmmeel dara mu ñu tax dañuy julli dañuy julli dañuy julli dañuy julli dañuy julli maire maire waaw kon nag julli ndeysaan waaw waaw waaw waaw julli dañuy julli maire bi dañuy waaw waaw wallaay wallaay wallaay dëgg la sëñ Ousmane wallaay waaw waaw moom moom naka jekk moom naka jekk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 ne tey commissaire moo woolu woon Dakar bi daral te la ñu woo ko ne woo ko ak ki nga xam ne mooy Mouhamed Taw ko wooyee xalifa bi jël woote na ne ñëpp ñëw xalifa xalifa woote wuñ de waaye bi ko nii ñëwee ñëpp dakk fii mbooloo mi gis yëpp ñu si bëri duñ taalibe maam xalifa de ñii taalibe sëñ Tuubaa ñii taalibe Baay lañ ñi bëri na fi ba si yow mi caméra taale bàyyi nga ak ñeneen ak ñeneen waaye l'islam moo woote l'islam boo l'islam kenn moomu ko l'islam daal li alxuraan waxoon rek gi ñu wax rek xalifa yi nañ gën a jàppoo doon benn doon doon waxtasimu bi hablillahi jamii'an wa laa tafarraqu néega bi yàlla bi ma ne même bu yoxoo ne ku fa dóow dugg julli dee sax nañ dem julli fa dee feebar ak dee sore na feebar ak dee dañoo sore يلا بلغنا رجل فيها رجل اللي يلا مين خمدي مو يتجه في أرمني سي مسل سولي سامي مو يلولو خليفة بنينا مغوا مين مين سي أندرك بنينا أجمع جينيو ديجو مغوا تري جلو خيب خليفة مغوا إن شاء الله بنيه يلا فكيرة مين يلا مين يربا كاني مين في نيو ديجو كم يوتر إن شاء الله ديجو ديجو يوسف ها ما كيسالا ما كيسالا نقول نسيريو مين na day ay jàng alquran ay ku fi julli Macky Sall mooy ay téere mi ku julli ak ku jàng alquran Serigne Daal ma fa cam ne fii yor daara man kala bi ci kaw la ko leer ngi seen Macky Sall moo ne kenn du fi julli kenn du fi jàng alquran te dinañ ko def nag Macky Sall moo ne kenn du fi julli kenn du fi jàng alquran te dinañ ko def Macky Sall moo ko wax te dinañ ko def ah, jërëjëf ah, kon mbokk internet yi yéen yi doon ah, ci page groupe sopp maam Khalifa maa leen nuyu di leen ziaraat beneen yoon di leen jaajëfal yéen wax dëgg yàlla jàmbaar ngeen yéen daa ndax boobu ba léegi yéen a ngi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 ñu ngi fii ci gar xalifa bi ñoo ngi fii ci gar dégg leen tuuti sikar ma tegale tuuti sikar ma tegale tuuti sikar mbokk waaw waaw waaw yow. alaaji alaaji ne leen may moo li ñu leen may moo waaw yaa ngi yaa ngi en direct ñëpp a seet. lundi lundi bu ngeen di cas contact lundi. ah dama la yow lundi bu ngeen di benn cas contact amuñ ko fi. fii dara du fi am peyu xalifa. ah waaw waaw waxaloon mu ne. waxaloon mu ne wax wax dëgg. ñun yeewu nañ. waaw ñu ngi ñaan bu lëndee. bu ñu leen di benn cas contact fii lew na. amu fi.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 borom jumaa ji maam xalifa si gatal moy wayjuru Sidi Lamine Niass Sidi Lamine yakarna naa waxe Sidi Lamine rek yakarna nga xam Sidi Lamine Niass maam xalifa moomu mooy wayjuram Alxaaji abdullah Niass moy wayjurum mam khalifa waye mam khalifa maam Alxaaji Abdoulaye Niass momu mo jur Baye Niass mi toj Nigéria toj kenu toj Afrique lépp mu kogu mam alaaji mi moo baye baay mam khalifa momu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 sëriñ si ñoo moomoon ziare général Tivaouane bàyyi nañ ko waaye ñoo moomoon appel si limaamu laay ba nañ ko waaye ñoo moomoon Kazu Rajab bàyyi nañ ko ñoo moomoon Madina Gunaas ba nañ ko ñoo moomoon xew-xewi gàmmu yi diine yi sëriñ si ñoo ko moom bàyyi nañ ko waaye nag néegam yàlla bii ñu bëgg ñu kaa bàyyiloo ah mbooloo mi loolu nag moom am lu muy niru dama ne bu ñu ña deewoon ca xare badar bu ñu gën a gore xare badar